très rapidement rek xam naa ci lu gaaw parce que Mbaye Ngom euh, jox na wane na l'essentiel mais très rapidement ñu wane leen quelques projets yu mag yoo xam ne mairie bi mëbët na ko am na yoo xam ne c'est des projets à court terme yoo xam ne jàmp na te koy def ci saa si am na yoo xam ne c'est des projets à long terme def na régi lii du premier projet bi de wala léegi lii voilà am na benn projet pavage boo xam ne je pense que Mbaye Ngom kii na ko léegi pavage boo xam ne day jógee buntu maire yi ñu jël buntu mairie mu dem ba rond point cœur de ville bi la ñuy jël beneen boo xam ne day jógee buntu mairie jàdd de romb hôpital dem ba rond point passoire bi deux côtés yëpp dañ koy pavé moom lañ ko matérialisé nii ngeen ko gis en vert beneen partie bi mooy day jógee fële BH BHS mooy banque bi dem ba croisement wu euh, euh, euh, kii na Niassène loolu yëpp danañ ko pavé aussi deux parties yëpp ko nu ngeen ko gisee nii donc il y aura 30 mètre carré de pavage yoo xam ne maire dina ko def incha allah te yii sous peu de temps incha allah travaux yi d'ailleurs sax commencé ko def di ko gis Kaolack léegi mu changé allez-y régie voilà lii projet cinq kilomètres la parce que xam nañ ne Kaolack surtout centre ville bi dañoo am problème tali lii 5 kilomètres route yoo xam ne la dañu ko war réaliser aussi très rapidement incha allah aussi lii ma xam c'est des projets à court terme loolu mën naa see bi njëkk a mooy tali bi nekk fii à côté cœur de ville xam day jógee arc en ciel buntu ko mu romb. buntu cour d'appel dana dem ba tali port ba daggi pori port bi ba mooy premier tali bi deuxième bi day commencer encore fii cœur de ville romb poste romb euh, comme zone continuer dem ba euh, tali tali marché bi fële ci kaw soobante beneen tali bi encore bi si gën a intéressant mooy surtout tali bi nga xam ne day jugee hôtel de Paris ginnaaw hôtel de Paris defe naa xam ngeen ko tali boobu je que ñun ñu fi ñëw ñëpp xam ne ne depuis colon yi lañ ko gëj a laal boobu dañ koy defar tali boobu day jógee foofu romb noonu dem marché géej dana dem aussi ba route nationale route du Noiro bi fa lay demaat encore kii moom beneen tali bi encore boo xam ne danañ ko jëlaat mooy à partir pharmacie Mbose ñëpp xam nañ ko mooy à partir pharmacie Mbose day jël noonu romb tali bi romb marché bu ndaw dem ba ci ñetti guy loolu ñëpp xam nañ ko tali boobu aussi dañ koy jël mais beneen tali bi nga xam ne nag moom aussi gën a neex boobu je pense que même xale yi ndaw yi xam naa du ma mag sax mais ñi nga xam ne jur nañ ay 90 ak yooyu mosuñu fa gis tali suuf te tali mu amoon fa mooy tali saara bi boo xam ne ñetti gay lay jógee dem ba boulangerie bay fa bayaa faal ña fay jaar léegi gisuñu fa tali parce que suuf la mais incha allah aussi jël leen ko en compte am na beneen tali boo xam ne aussi day jógee post mooy poste bii nii tàllal dem ba port donc dina am cinq kilomètres de route yoo xam ne incha allah dinañ ko defar hmm? du ma daanu ah <laughs> ko defar incha allah vous verrez que ne su paree centre ville bi je pense que dana mel ko bëggee ni ñu ko bëggee allez-y lii nag ay voie de contournement la parce que ñëpp gis neen camions yi gros porteurs yi nu ñu duggee ci ville bi déjà risque yu mag la tali yi yàqu yëpp tiwa yëpp ñoo koy yàq te retard la aussi ci ñoom parce que neexul ci ñoom léegi garde gros bi mbay ngoom doon présenté léegi nga xam ne incha allah li ñaan lañ koy def su ñëwee fa lay yu mag yëpp di taxaw noonu lañ ko bëggee léegi ay oto yu ndaw yu yem ñooy jaar jël bagage yi ay camionnettes dugal ko ci biir dëkk bi ñoom ku si pare ëllëg muy dugg ci dëkk bi contournement lay def boo xam day jógee foofu jaar wetu Sonacos jaar wetu ginnaaw Sing Sing noonu fële ji Koundam jaaree noonu fële ji Noiro pont Noiro nga xam ne du jaar ci dëkk bi incha allah léegi tracé bi moom ngeen gis nii moom lañ def nii en rouge te bëgg neen ko réaliser beneen trajet bi aussi bi ñu defaat contournement bi à partir de Lindiane su fa jógee aussi da koy contourner fële ji Mbadakhoune fële ji Kahone. mu leer na la benn camion du jaarati biir Kaolack mais li si gën a neex encore moo camion yi suñ ñëwatee am nañ fu ñu gaare mooy parking de gros bii mbay ngoom doon wax foofu te foofu activité économique bu mag moo fa nar a am parce que suñ fa gaaree dana am ay hôtel fu tëdd dana am ay boutique dana am ay magasin de gros mooy ku ñëw sax su la neexee nga décharger sa magasin sa bagage foofu oto yi ndaw yi mën di ko jël di ko dugal biir Kaolack donc activité bu mag lay def foofu après fourrière bi mooy nekk ci ginnaaw comme ni ko mbay ngoom waxee allez-y régie voilà lii mooy projet garde gros bi mbay Ngom doon wax moom lañ jéem a essayer matérialiser fii benn je pense que duma ma si yàgg mbay Ngom wax na ko ba pare allez-y allez-y régie voilà lii aménagement bu ñu bëgg a def la aussi ci plage bi incha allah mooy littoral bi littoral bi nekk wetu Pont Noiro j'avoue que foofu nag ñu lu bëri occupé neen ko mais avec des partenaires comme Salin incha bëgg nañ ko gën a aménager gën ko defaraat ba nga xam ne ku fa romb au moins di nga mën a gis géej gi et puis di nga foo mën a def aussi kii kii piéton continuez allez-y voilà lii benn projet la bu président xalaat fële au niveau de Koundam je pense que mbay Ngom wax na ko léegi foofu bëgg nañ fa def déjà fourrière bi fa lay nekk mooy fourrière animaux yi mais incha allah nouvelle ville lañ fay def boo xam ne dina am dana am une fille une partie une zone économique dana am ay hôtel dana am ay usine lépp loo xam ne nit war na ko fa def lu rafet rek incha allah ko fa def zone Koundam bi yëpp lañ ko bëgg a jël te études yi commencé na léegi ñu ngi waxtaan ak partenaires yi bientôt dinañ ñëw indi leen études yi incha allah su mébét bi su sottee nii lañ ko bëgg a def te xam nga projet bi lu tax du metti parce que ku xam président Serigne Mboup même projet bi tëggoon na ko ba mu sotti ñu waroon ko def Lac Rose mais yàlla. dogalu ko mu am fa exactement lu mel noonu lañ bëgg a seppi ñëw indi ko fii ku ndam te bu verrez que ne incha allah Kaolack Kaolack waxuma leen mais gëm naa ni ñi dina dagg visa sax pour doo fi dugg parce que benn ville du ko bel noonu ah waaw loolu moom mën nañ ko wax <laughs> voilà je pense que foofu laa mën a yem ah bu di leen remercier yéen ñëpp merci beaucoup